xalifa Cheikh Umarul Fuutiyu waaye ñëwam Touba de du gan bi maamam ju baax ji dee xool leeru sëriñ Touba gi ba ñëw Touba wax maam Moor Anta Sali la mu ko wax Cheikhu Bousso moo dégg ci Mbusoobe at moomu Cheikh Umar lañ ko tudde looloo tax Cerno Bachir xam ni boppam la ñëw barki démb ko seetaan siyaar bii mu def siyaar bi yëpp da koo jooyal Cheikh Sidil Maxtaar ni kenn nekkut moom moo ñàkk nañu ko ñaanal kaamil yi fi nekk ak yëpp nañu ko jooyal jëmale ko Cheikh Sidil Maxtaar te ñaanal nag Cheikh Amadul Muntaxa mu yàgg lool te wér tey nag muy Cheikh Omar ànd ak njaboot gi kenn gisul waaye la ca gën a yéem ma ànd ak sa njabootu bopp Serigne Mahmadan mu Cheikh Amadou Moutada sëriñ Xaadim mu sëñ Mbàkke soxna Lo da lay wan sa njabootu bopp gi fa Louga dem nañu ci moom àndanteeg moom mu jaboote leen lislaam bi nag ñëpp ànd naa ak ñoom ñëw tey fekk si la nga fekkoog saraf yi yëpp ak njaboot gi yëpp kon nun ñëpp nu ànd dëgg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 ñëw tey nag ci kërug boppam fekk fi jàmbaari islaam ji ci toogaay bu sell bii ñuy ñaan mu yàgg lool ci ànd ak wér muy sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Xaadimu Rasuul sant yàlla nag ñeel ñu waaye ab jullit bu ñàkkee ca ka mu ñàkk di kenn ci réew mi di kenn ci àdduna su yëkkatee kàddoom ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun am xelam war naa dal ki nu ñàkk nag ba tax nu jóg da doon Sénégal di Afrique di le monde entier kooku mooy kan mooy sëriñ Sidi El Muxtaar jàmbaari islam bi liggéeyal lislaam liggéeyal tariixa murit ànd ko nag ci biir réew mi yépp ndax yéene moo doon ñépp àndandoo doon benn te sunu borom dimbali na ko ci ba teg ko ci loxoom mu soog muy wan gannaaw yàlla ko muurloo doon kenn nag ci kii di sëriñ Mouhamadul Bachir boo ko masaanoon nuyu ñu ko Cerno Mouhamadul Bachir nuyu na la mu fab loxoom yi tedd ya teg ko ci dënnam ba ne wax xeyaartu soo masaanee ci Cerno Bachir ñu ko sëriñ Sideel Muxtaar nuyu na la mu fab loxoom yi tedd ko teg teg ko ci dënnam bi ni wax xeyaartu ñu bëggante woon lool déggoo woon lool séqoon lislaam bi séqin wu sell ca rafet Cerno Mouhamadou Bachir yi nga koy wax barki dem rek ci Louga lu mu mës a yëkkati ci lislaam rek délégation ak alalam ñëw na dugal ko ci biir ànd ko ak moom ba lépp rafet bii jataay nag day jataay bu nu mag ñu fàggul Cerno Muntaga Daha jamono yu mu yëkkatee tànkam gane Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mu boole ko sëñ Moodu Mustafaa Mbàkke mu ganale ko ay weer teral ko ay teraanga yu yéeme loole daal njaboot gee ngi ci teg seen bët ca ba buuf tey wal duñ ko fàtte sëriñ bi ñu lay nuyu kii ñëw ci yow tey nag day yow ngay moom ndax lislaama leen boole mu naw la lool ci sa jëf naw la lool ci dég-dég naw la lool ci fi mu teg tànk ak fi nga teg sa tànk doon benn rek mu ñëw tey nag ak xol bu lëndëm waaye nag dëxëñ ci gëm yàlla ba tax xol bi leer nañ mu di la tàll loxo di fas kóllëre sa digganteego waaye di la jàll nag sa mag ju baax de yàlla na xippaa jëne firdaws bi muy ñëw nag xel mu dal la dikkee ndax njabootam gépp la woo ba mu ñëw mu berne leen ca këram ba ñëpp bég mu taal cortège bi di ñaar fi koota ak juróom jóge Louga directement ñëw ci yow ngir yàlla ak yonent bi di la jaal si ku tedd ki nu bokk waaye su la jaalee ba noppi nag mu ngi lay ñaanal yàlla yàlla may la wér yàlla may la kàttan yàlla guddal saw fan ba li nga yéen a liggéey sama Serigne Touba nga liggéey ko ba mu àgg ca nu ko koog yow. bi muy ñëw nag mi nga ànd ak dereti boppam Thierno Nourou Talla ngi nii toog ci wetam Cheikh Omar Mountaga magam ju tëdd kaa ko jur bàyyi koog moom mu jox ko léppam doonub taalibe jaay njuleen guddee ni koog taalibe mi ngi nii toog àndandoo ak moom. ànd ak kan Cheikh Umar taawam bi nga xam ni da koo taawloo ba noppi nag séddale ko ñëw ni fi ay yoon ci ndigalam nga naw ko lool ci yar bi mu ko yar. naw ko lool ci teggin yi mu defal ci jëmmam ji naw ko lool ci xam-xam bi mu def ci jëmmam ji waaye naw ko lool ci sopp gi mu sopp baayam boo ko nuyoo mu nëbb la boppam wala baayam Cheikh Mouhamadou Bachir. mu di la xamal ne wow askan ci xolam la nekk loola war a mu jël sëriñ Dan Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou daa toog toogaay bu rafet luga amub yar ami teggin amuk taalibe bëgg ko lool jox ko léppam ci biir activité mi ngi àndandoo ak moom. ak nag doomi boppam Serigne Xaadim Mbàkke moom Serigne Mbàkke soxna loo di kenn moom itam ak waa daaru xudus gépp ci Louga léppam balaa yëkkati bant dikk ni ko kilifa gi sama nopp ngi kat jox ma ndigal ma dem doxali ko nee na loolu mu ànd ñoom te mu sell ca rafet moo waral mu jiital leen àndandoo ak ñoom ñëpp dikk jógu ci sa kanam di la xamal ni ku mu ñàkk foor ci moom lool waaye Louga ga mu dëkk nag booy na lislaam ba benn lanu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi moom lan def muy suñu kilifa ñu dikk àndandoo moom dikk teew sëriñ bi daal damaa bëgg soxla juróom-ñeent fukk juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent yépp mooy nga gudd fan lool ci lii nga yéene liggéey Serigne Touba nga jëf ko ba matal mu ngi siyaare nag jàmbaar islam di ko ndokkeel it ci liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba ba am ngërëmal baayam ya ak magam ya kooku mooy kan Serigne bii toog di Cheikh Mamadou Bachir ibnu Serigne Abdou Khadir Mbacké yal na yàlla guddal aw fanam gis nañu déclaration bi nga def ci moom xool yëpp seddaat na xel yëpp dalaat na yal yàlla bàyyi ko kattan ak wér gu mu toog liggéeyal Serigne Touba ba sa xol seddu yi Serigne bi daal xayrul kàllaami maa xalla wa dal la bu nu ko toppee mën naa yaatu lool ndax kii nu àndal li mu ëmb ci xolam béegi yéeneen bi fas ko yéene wax sa jëmm ju tedd ji ak liggéey bii mu lay ñeewenteel ci bëgg nga àggale ko ci am ci ndam mu ne su ko wax ba mu jeex foofu daal lay tënk kàddu gi waaye ñu ngi ànd ak sa doom nag sëriñ Cheikh Lo Diop bu kokki na mu juddoo ci kokki bokk ak yow ngay bàyyam di deretam mu wëlbati noonu la doxee foofu kuréel gi teg ko ci mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa barakaatu. li ñu fi wax ci arabiya lañ bëgg tënk ci làmmiñ bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy dégg muy wolo ñu bëgg a wax ne gànnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñun ñëpp ñu ngi ñàkk suñu wayjur suñu xalifa Sëriñ Sidi Moxtaar al Mbakki radiyallahu ñëpp ñu ngi am xol yu am tiis ci biir am naqar waaye lii yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñun loolu rekk lañuy ñuy wax alqalbu yaxzan wal aynu tadma wala yaqulu lisaanu illa ma yurdi rahman ay na am suñuy xol am na tiis ci biir suñu bët yi mën na am rangoñ waaye suñuy làmmiñ duñ ci wax lu dul li nga xam ne moom la yàlla santaane lañu ko wax muy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gannaaw loolu suñu xalifa cheikh Mouhamadul Bachir Muntaka Taha ak cheikh Alhaji Umar mi nga xam ne moom mooy xalifa waa kër Umar yépp fu ñu mën a nekk ci Afrique ci àddina bi mooy xalifa képp koo xam ne tijaani ya nga tey ndax cheikh Umar mooy xalifa. moom mooy Cheikh Oumar Dieye dañu ànd ak moom mu jiital ñu mu ne nañu ànd dem jaale ji sama mbokk moomu ñaari mbir benn bi mooy ki nga xam ne jóge na fi sama xarit la woon sama soppee la woon ñu dañu nekkoon benn nit benn xol benn jëmm wax na ko keroog ci ziyaara ba mu ne bari na lu muy jël téléphone di ma woo man itam bari na li ma koy woo musuñu réeroo lépp loo xam ne yëg na ko man itam danaa ko yëg kon kooku bu génnee àdduna dafa war ci man ma dem jaale ji waa kër Serigne Touba ci loolu waaye beneen beneen yoon bi mooy dem ndokkeel sama xarit sama soppe muy Sëriñ Muntaxa Bachir mi nga xam ne balaa muy nekk xalifa ñun ñépp gis nañu ne moom nitu lislaam la nitu dégg la nitu yërmande la nit ku jub la koo xam ne foo ko gis gis lislaam am na ñoo xam ne ida ruu zukira allah boo leen gisee rek fàttaliku yàlla moom sëñ muntaxaa ci ñoom la bokk kooku jaadu na ma sama dalla munoon naa yónni sax samay taalibe sama njaboot waaye li ma gënal mooy masol sama dalla dem ñaari mbir mi ma defal ko sama bopp jaale ak ndokkeel mhm. li ci yéeme nag mooy xalifa bi nekk fii sëñ Muntaxa mi ngi tuddee Muntaga mooy baayu Cerno Bachir Cerno Bachir moom itam mi ngi jël tur ki nga xam ne mooy baayu sëñ Muntaxa bu Tuuba loolu lu yéeme la Muntaga Bachir ak Bachir Muntaga loolu am na lu mu firi lu mu firi mooy ñu xam ne bushra moo fi nekk bushra moo fi am bushra mooy mbégte am lu neex am lu baax am yiw loolu mooy bishaara yàlla ni wa bashir ibaadi wa bashir al wa bashir alladina ida asaabathum lépp bushra la rek kon ñun suñu yoon bi insha allah bishaara la bushra la am nañ ci yaakaar ne moom mii toog toogaay bi dana nekk bishaara dana nekk bishaara ndax baayam bishaara la xalifa bi ñëw di ko jaale di ko ndokkeel moom itam bishaara kon alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi am yaakaar ci moom moom xalifa bi li xam ne xalifa yi fii jaar sumb nañu ko liggéeyoon nañu ko ci lislaam ci tariqa muridiya moom dana ci weyal yi nga xam ne doolam daan na ko def balaa muy nekk xalif waaye dana ko weyal kon Thierno Bachir ñëw na bàyyul foofu kenn ci deretam ci njabootam ci ay taalibam ñi nekkoon dakaar sax ñun ñi nekkoon dakaar dafa wax ne nañu ñëw ànd ak moom kon kenn desul ki des ñi nga xam ne ñëw nañu ñu ngi leen di wuute kon incha allah ki nga xam ne jóge na fi yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla dolli leeram yal na yàlla dolli leeram yow mi nga xam ne yaa ngi toog ci xilaafa bi yow itam yal nal la yàlla sàmmal boppam yal nal la yàlla wommat teg la ci siraat al mustaqim yàlla aar la may la gudd fan wér-gi-yaram ak mujj bu rafet wa ma kullu hadihi al umuri ala bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahiim. alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne tey. moo fi toogee jataayub Serigne Touba yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di yëkkati nuyoo bu gën a màgg ni ko alquran santaane wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha di ko teg ci loxol mbokkam di xaritam Thierno Bachir Tall mi nga xam ne moo toogee jotaayu Cheikh Omar Fouti di ko ñaanal mooy tam suñu doom dëgëre taxawaayam ci lislaam di nuyu mboolem ñi mu àndal ñëpp di ay doomi boppam di ak njabootu boppam te ñuy luñ leen léegi sëriñ bi ngi leen di delloo ak nuyoo ci ku màgg ki ñu ñàkk di jàmbaari lislaam di Cheikh Sidi Moukhtar yàlla na suñu doom doole leeram te taasuñ ci barkeem mu nekkoon jëmm joo xam ne taxawaayam bépp génnutoo lislaam seen jataayu te jii firnde ci ndax moom bi ko fi suñu borom tegee li mu njëkk wax mooy bu soñoon jullit yépp nekk àndandoo nekk benn yëmut ci wax ko nag da koo jëfe looloo waral tam yéen ñi nga xam ne yéen a nekkoon ay mbokk yu tedd ngeen wuy su ko ci wuy wu rafet ànd koog moom ba suñ boroom jeexal ko minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantasir kon sëriñ bi mi ngi leen di delloo am nuyoo bu baax a baax di la sant di la gërëm ci taxawaay bi nga xam ne lu mu fekkoon la ci diggante sa maam Cheikh Omar Foutiyou nga xam ne mook Serigne Touba fekkintu woon jamono waaye bi mu fi ñëwee ci Mbàkke ci histoire yi ñëpp xam nañ li mu junjoon ci Serigne Touba. at moom itam képp ku fi judd rek moom lañ ko tuddee Serigne Touba itam am moom ci wàllu baatin ay relation yu xóot yoo xam ne ci Serigne Souhaïbou Mbacké laa ko déggee. ci bi sëriñ bi nekkee ci géej gi lu kii maa sëriñ bi tudd na ko ci biir ay mbindam bokk na ci wa kaana xaw ka xawli umara man bi tuxaa wala ilmi xatt azzara kon loolu lépp tam di firndeel alaaxa bi nga xam ne amul ci seen diggante kon nag Cheikh Mouhamadou Mountakha lii nga seere ci moom léegi rek mooy di àdduna sipp xam ci moom mm-hmm. muy ku dëddu àdduna ku soxlu dara lu mooy ngërëmul yàlla ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa kon na xam ne lépp loo xam ne magam ju baax ji Cheikh Sidi Muxtaar tàmbali woon na ko dana ko yeesal yokk ko ba mu àgg fu gën a kaw incha allah nee na mi ngi jokk bokk lislaam bi di jokk bokk der gi nga xam ne boo na na fas yéene itam incha allah du ngeen umpante ci dara lépp loo xam ne xew na fi dana ko ànd ak yéen lépp loo xam ne xew li ci yéen itam dana ko ànd ak yéen ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax ku gis délégation bi ni nga ko ñi nga àndal mbooloo bi rek nga xam ne fi ngay jëm ñor na la kon dangaa jóge ci sa biir kër tàbbi ci biir kër kon nag li suñu mbokk mu tëdd mi doon wax léegi rek kon bushra liman bi hudal islaami qad daana rafet nañ jot ci bu baax ne suñu borom dana ci def jàmm def ci tawféex def ci ndimbal bala ñoo jeexal nag ñu ngi Thierno Nourou mi nga xam ne moom ko fi faral di ñëw te bu dikkee di fi taxawee taxawaay ba ak sa doom Cheikh Momar mi nga xam ne moom itam taxawaay rafet na. di nuyu itam Aliou Sall ak. Euh, Mamadou Diallo ak mboolem ñeneen Thiès ñëpp ak El Hadj mm. bu ma limee dama jumta limoon na ñëpp waaye sëriñ bi lay nuyu. Mm. di sant di la gërëm di la xamal ne lii. dafa bokk ci mission bi nga xam ne Serigne Touba mooy li ko taxoon a jug mooy benn rek jullit yi dadaa wax ne yaar rekk fi nekk innamal mu'minuna ixwatun moo ne ak tey la inna sheytaane ne ak nax la mu ne tey gi ci innamal mu'minuna ixwatun nag nax gi ci inna sheytaane lakum aduwwun mënu ko mënu ko yàq mm. kon lañ rafet jox bu baax a baax te xam ne sëriñ bi li mu waxoon bind ko rek fu kullu wirdin yuwardil murida li xadratillahi walam yaxida sawaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad li tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaab hmm. kon loolu rek moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké fas yéene dundal ci mboolem bokki lislaam yëpp hmm. ba ni ko Cheikhul Xadim tàmbali woon daa ko dina mboolem njabootam bu tedd gi itam daa ko jëfe ba agsi ci Cheikh Mawla Baara ba agsi ci Cheikh Sidi Moussa mu wóoyee loolu gën koo dëgëral gën ko sàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi lu ñu yàlla baax fekk ko ñun ñëpp amin Mbàkke amin taam amin amiin te àdduna amiin Mbàkke